mbokk yi xarit yi di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégteeg bànneex ba tey jàkkaarloo yéen ci suñu biir plateau bu yanj bi Abou Mouhamed di lay nuyu

koor la góor da koy jël jigéen da koy jël te ku nekk bu ñu jamono tàngaay dañu soxla li nga xamante mooy ah. ay lavande oyof waaw am na xeetu fruit boo bëgg rek daal dina am te li ci gën a neex mooy bu la neexee def sa saak bu la neexee def sa poche bu mooy ma ñëwaat ci sama euh, gel pour loxo moom moo ko tax a jóg pour ah dafa am saabu am tamit pour loxo am am pour loxo xam nga ah. bii moom bu détergent la xam nga am dërëm cosmétique waay dëgg la ku nekk xam ne ne micro baaxul ci li nga xamante ne bii mooy waaw baaxul ci loxo te da ngeen daal di ñëw wala ngeen génn daal di def seen i loxo rek ba mu baax te am na li nga xamante ne bii mooy mooy euh, gel bi am na euh, fraise bi am na tamit li nga xamante ne bii nii mooy citron bi am na tamit li nga xamante ne bii mooy carotte bi ba tey savon yi noonu la savon yi picc ak tache lépp lay génnee ci li nga xamante ne mooy yaram nourrir seen peau hydraté ko pare ñu defarañ ci tamit antibactérine yéen ñi nga xamante dañuy faral di am picc ku nekk xam ne ne ñu ngi waaj a dugg yooyu bu wàccee xale yi dañuy am li nga xamante ne mooy picc mais da ngeen daal di fas jënd bii rek daal koy bàyyi ci seen biir kër yi baax na trop pour mag da koy utiliser xale da koy utiliser di jaajëfal nag bu baax a baax sama sponsor yaan ndax peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg boo leen di am émission bii nii bégee di reetaan grâce à sama sponsor yaan waaye abu Mouhamed nag boo leen bëggee da ngeen def moom yii lay def tamit ak yeneen kooku Oroy Ndiaye robe bi nag moom baax yaay couture moo fi génn ah. comme ni koy waxee saa su nekk numéro bi 77 235 83 88 ngeen daal di doxantu ndaxte ñu ngi waaj nag jamono tabaski tey yu baax a ngi foofu noonu waaye ba tey li ci sama ginnaaw yëpp gis naa ko waaye na amul solo jërëjëf Mati ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal kenn dalu jàmm mbokk yi di ñaanal kilifa diine yëpp yal na yàlla defal jàmm may leen fan bu gudd ak wér gu yaram euh, tey temps bi dañoo xoj waaye ñu fàttali ne bii ci la suñu xarit bii nga xam ne mooy yaa sayda ci la génn àddina yal na ko yàlla xarit ci àddina gën a kawe ki nekk ci réalisation bi Pape Samba Thiam la ingénieur de son bi Daouda Gueye la jëmm benn caméra de yaa sayda Mariama Ndiaye yal na ko yàlla xare àjjana moo nekk ci caméra yi jàkkaarloo kon ñun mbokk yi tey ci bés bii nga xam ne moom mooy bésu altine dañuy dem seeti ki nga xam ne mooy Ablaye wadd am na benn discours bu mag bu Ablaye Wade war wax mbokk yi seet Ablaye Wade ci coow li nga xam ne am na senegal nan la ko Karim dundee ak la tax Karim dund ko ñu seeti Ablaye Wade. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam. di leen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm barki démb ba tey maa ngi gis ne sénégalais yi ñu ngi dugg ci réseaux sociaux yi di ñaan retouru Karim Wade yéen ba ngeen Karim ñëw ni ngeen ko bëggee ni ngeen ko bëggee noonu la ko ñëpp bëggee Karim daal wax dëgg yàlla boo xoolee nag wax fa dëgg yàlla waxtaan suñu biir Karim nitu jàmm la sa moromu góor ne yow ne la eh bien da ngay génn réew mi mhm. nangu sa passeport nga nangu loolu yëpp pour bañ indi coow du ragal de dafa bëgg rek senegal am jàmm Karim tey bu ma toppoon si xadar mhm. kon mu ngi defanteeg Macky Sall parce que dama ko woon ne ko Karim il faut nga riposter mu ne ma papa bàyyi rek démocratie du noonu adduna bi dafa am nu muy doxale dem ba sa doom di defal mooy wane na Karim nit jàmm Karim daal démb dafa jooy jooy jooy ba mel ñaari paanu rongoñ ma ne ko Karim paanu rongoñ yi moom nu ko koy def mu ne man dañ ko tuur Sénégal parce que papa dama bëgg Sénégalais yi nekk ci jàmm Karim dafa bëgg Sénégal bëgg Sénégal bëgg Sénégal ba nga xam ne léegi sax Karim man dama koy xool si yàgg na ko mais yow lan la. léegi nag Karim nee na ma comme que yéen a ko yéen a ko bëgg. mu bëgg leen ay bëggante la. Karim nee na dafa soxla dix millions signature ah. yoo xam ne Macky Sall day xam ne Karim bëgg na ñëw. bu fekkee pare ngeen. Mm-hmm. dès suba mun ngeen commencé signer. parce que Karim namm na réew mi. namm na ñànkatang. namm na xooñ. namm na cere baase. <laughs> te nag Karim tol na foo xam ne dafa war am jabar. léegi démb nag jox na ma xaalis bu bëri ah. ne ma tabaski waayu waayu ñëw nee na daal xam na ne jigéenu Sénégal bëgg nañu mais amuñu Karim nee na dina jox actuellement tous les femmes sénégalais ah. ak jeunes fi seen morom yi uh-huh. kenn ku nekk deux millions cinq cent pour sa wàcc deux millions cinq waaw ba pare nag nee na bëgg na daal képp koo xam ne mm-hmm. bëgg nga ko moom Karim mm-hmm. incha allah dina wax ak yow téléphone bañu ko bés bu ne ñaari sénégalaise nee na daal jigéen ñi ñoo ko nar a fal te yéen la ko yaakaare démb daa jooya jooya jooya jooya jooy ma ne ko Karim rongo ñi doy na mu ne papa comme que robinet day tëj jëlal rongo ñi dem yóbbu ko Sénégal waaw waaw dañuy tëj robinet yi rek dëkk boo xam ne robinet yi day tëj te Karim moom buy jooy rek ay paanu rongoñ la nee na nañ jël rongañ ñu yóbbu ko Kër Massar. bu mag Abdoulaye Daouda Diallo coow li dafa bëri ndax la mu wax dafa ne yaakaar na ne fii nga xam ne mooy na yee mooy coow li amatuñu doléance ba mu ko weex nag ak nit ñi nañ ko interprété ça fait ndax moom dafa buggoon wax ne solution problème yu bëri yi ci ëppoon réglé nañ ko donc li ci des ay tuuti tuuti la kii nga xam ne nag mooy géwalam di ngay dox ànd ak soxnaam di Mariam ñoo dem nag pour leeral askanu Haalpulaar ne li daaw da wax ak ni ko ni ñi waxee ak ni ñu ko impété du loolu ngay nga xam ne ñëpp xam nañ ne mooy Baye Fallou Abdoulaye Daouda Diallo nee na du bàyyi ku yàq deru Abdoulaye Daouda Diallo fii ci biir Fouta ñu dem seeti ngay ak soxna eey eey jaaraam eey jaaraam eey jaaraam Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo Mariam Diallo jërëjëf jërëjëf yàqkat yi lëmbekat yi jaxasekat yi seytaane yi ñi xam ne dañuy jël wax dëpp ko Ablaye na nii ñu ne nee la wax. Ablaye wi kanko nii nii Ablaye wi kanko ko nii o wari. Ablaye. Ablaye. Ablaye. lépp li nga xam ne wax na ko. lépp ko wi o haali. lépp li nga xam ne wax na ko. foofa wi kanko o haali. moom dafa wax lu leer de. kanko o haali ko laabi. li ma leen koy tënkal ci olof. pour mi haalnama e olof. mu ne mel na nit feebar dem hôpital. pour neɗɗo so faawaama yaha hôpital. nit ñi daw di jooyi. yimɓe ɓe no dogde pour wulla. docteur bi ne sant leen yàlla kii bi wàññeeku na. o wi yettee Allah pour nawnaare de o waɗi Allah waɗi heen. maanaam ni di ñëw. pour am na lu bari lu ci wàññeeku. Eh, Ablaye soo gisee mu wax. Ablaye pour yi o haali. ne Fouta amatuñu doléance. o wi pour Fouta ala doléance. parce que ñëpp xam nañu l'île Amorphile. pour pour foo andi pour ko warnoo toon ko. Eh, l'île Amorphile bu nga foo dugg dangay am problème booy génn dangay am problème. pour naa tuddee a heɓat heen problème pour naa nga xam ne dañuy nekk am lor am biir. pour rewɓe ɓe annduɗa pour no wonde haa ɓo heɓa ɓiɓe. poste poste santé. poste santé pour o amul woon. alaa no heen. yoon bi baaxul woon laawol mojjaan bu musaan taw nit ñi dañuy am problème pour no tam de foof no tampa pour nga dugg rek biir dëkk biir da ngay def ñaari waxtu ñetti waxtu pour naata der gale a tampa il faut wara hen deux waxtu wala trois waxtu léegi nag bi yàlla defee Abdoulaye may leen ñu Ablaye bi ko yàlla joxe infrastructure maanaam tabax tabax yi. Ablaye pour Allah okki mo investi pour feeñu gala gàlle ji hee foofu. ey ci la jëlee lu mot 500 dugal ko Fuuta. pour yetti 500 millions pour on a tiré der Fuuta. defar li nga xam ne mooy suñu jàmmat. pour o en pour enen eh, fof ko mettuno en ko diggante léegi boy dem ranneeru dem linguére foy jaar yoon boobu waa pour rewde linguére fof o oh, oh, oh, fewni ɗum ha moƴƴi Ablaye Daal jigéen ñi ñu ngi koy gërëm Ablaye Dial kanko jaarama rewɓe fof uh, weltanima ko diine yi ñu ngi dëpp ko mooy seytaane yi andi seytaane moƴƴa galle ko ɓe bonni fof Ablaye daal ku baax la. Ablaye daal ko ne dama waaw soo waxee soo waxee ne lii amatuñu doléance mooy maanaam li gënoon métti dem na. billaay Ablaye kankoor yi yóbbu doo ko ne dama jox. Ablaye eh, parce que lii la amoon ak dëkk yi nga xam ne bokk naaje ak fi nga xam ne moo nekkoon enclavement problème yi amoon yëpp moom Abdoulaye Daouda Diallo bu mu nekkee ministre infrastructure da ko daanee déclenché yoon yi baat nit ñi dem seen soxla billaay ko Abdoulaye ko watno fofo ko naa kanko feeño watti fofo idde warane fofo kon la parole donnée la o et la les ennemis pour les paroles transformées par les ennemis ala ala français waxal na ji ñiy mi wawa français mi haala fof ñii nga xam ne dañuy changé wax eyyi eh, ɓe annduɗa pour change wax dafa leer dafa ne ko haali ko no problème yu bëri wàññeeku ko wonno problème amen foof Ablaye acci te Ablaye ko Ablaye daal daal bi ñu ko joxee budget kanko kay ko okka budget 500 millions la jël dugal ko fuut 500 mille foof o ƴetti o Fuuta. ngir Fuuta mun a baax. pour Fuuta kon ñun nii. ku bëgg bëgg nañu ku bañ bëgg nañu Ablaye moo nekk suñu kaw. Ablaye ko yow. Ablaye ko yow. hey Diallo Abdoulaye Daouda. hey Diallo Abdoulaye Daouda. hey Diallo nakari mooy président gërëm na ko. wi weltani momo nee na ko diwli nga foo takk ñëpp xam na takk na kanko wi ko diwli kataɗo waɗi takk fo anda uh, fakki Ablaye ku déggul li ngay wax du comprendre waaye yow yaay toolu yaa baax Ablaye so nanaan ko haalta ko sa waɗi ɗum anda uh, Ablaye ko waɗi ko fof moƴƴi ku bëgg bëgg nañu ko ku bëggul bëgg nañu o uh, wi ko yiɗɗo yiɗi ko yiɗani yiɗi eh, ne yiɗi aca hayo ari hayo Ablaye ari argay loo ko looy ari way hayyoo muhammadu rasulillahi rasulillahi muhammadu rasulillahi sallallahu ala muhammad rasulillah Ahmed Abdallah Thiam nee na soppeem ba Sayyiduna Muhammad am nañu mbégte ak kontaan bu mag di nuy waa Yeddaake Yeddaake TV DG bi di Ibrahima Gueye madame Diop mami Ndaw artistes ak acteurs yi nekk Yeddaate TV yëpp de la part de euh, Khady Gakou ñoom ñu nga ca Grand di liggéey liggéey bu am solo waaye ñu ki nga xam ne xalaatam ak xelam yëpp mooy fexe ba euh, renforcer culture bi foofu ca Grand Mbao di DG Ibrahima Gueye joyeux anniversaire à. taa Koddu Ndiaye transitaire depuis Liberté 1 yaayu bébé Daba bébé Iba ak euh, Gogo xale yëpp ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd foto mu ngi noonu yal na ko yàlla defal jàmm de la part de maman Mbengue waaye tamit ñuy wax joyeux anniversaire à Oumou Khayri Diallo madame Biteye député awan quartier Serigne Babacar de la part de son mari monsieur Biteye dédicace à Ami Top jigéen ju man góor depuis Yoff de la part de Kara Diop Ngor foto mu ngi noonu mbokk yi. Macky Sall tàggatoo na waa Fouta de jaar na. daara jolof ak Touba waaye bi mu jaaree Touba am na lu mu dégg li mu dégg nag il faut ñu déggal ko nit ñi Macky Sall ngay tàggatoog waa Fouta pour jaar Touba dem Daara Jolof ñibbi Dakar ñu xooli Macky Sall bi ko xale yi di jël si pour ñu daal di jaar trajet boobu Macky Sall ngay tàggatoog waa Fouta mbokk yi ñu dem xooli Macky Eh, bande jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di gërëm ku nekk sa tur sa sant gis nañ ni ngeen ñu taxawoo ñetti fan yi nga xam ne def nañ ko Fuuta. oui macha allah macha xale yi ñëpp daal cee ànd. Mhm. ngeen ñu defal ñu li nga xam ne mooy lekk njorndi. Mhm. lekk fonde. et eh, ma gis sama mbokk Haalpulaar yëpp ñu daal di ànd bëggee. maa ngi leen di sàggu di leen jox rendez-vous ci biir at bi mm-hmm. dinañ fi ñëwaat ndax suñu fuuta bii wane na fuuta tampaan yi yàqkat yi ak waxkat yi yëpp gëwuma leen parce que li ngeen ma wan loolu laa gis mm-hmm. kon ñu ngi leen di tàggu di leen jox rendez-vous incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf au revoir au revoir wallaahi léegi fan la yoon bi waaw président kontaan nañ torop macha allah léegi nag dañ lay wax ne comme diggante Fuuta ak Touba taxu ko sori noonu léegi dañ bëgg a jubali Touba mais bañ demee Touba jaru sax ñuy wàcce oto mën nga tàllal loxo nañ ko dox parce que bu ñu génne neer dañu dox voilà buñ jugee jàddee rek Jolof incha allah kon nañ jubal daa mel ni sax euh, xoola waa waa Touba yi la mais xoola président président bul bul jaaxle si loolu parce que waa Touba xamuñu xeex xamuñu xuloo xamuñu saaga buñ nee wuu mooy maanaam dañu kontaan si yow waa Touba ñoom ñooy mais bu ñu waxee wuu rek maanaam dañ kontaan si yow nañ avancé amul benn problème xoolal xoolal instant romb nañ leen nañ dem Daara Jolof instant ñu ngi Daara Jolof nii xoolal waa Daara Jolof. jërëjëf may leen ma tuuti bi ma tàggatoo Fuuta gis naa ne xale yi ñu ngi doon jooy mag ñi di jooy waaw macha parce que ñetti fan nga nekk ko population Fuuta mhm. jóge Fuuta di jaar Touba dégg ay yuxu mhm. xam nga li ngeen di def ni du yoon dinaa dem ci sëñ Muntaxa boole leen parce que dëkk bii la du dëkk boo xam ne dañ fi war a nit macha allah waruñu fi yuuxu nit waruñu fi def humiliation bul faala yow la ñu bëgg yow la ñu bëgg d'accord yéen nag waa gis naa ni ngeen ma teeroo mhm. Aly Ngouille Ndiaye ni ma teeroo gis naa ne vraiment wane na carrément mais tamit Samba Ndiobène Ka vraiment mention spéciale gis naa na ngeen taxawoo. waa Touba nag maa ngi dem léegi suma ma eggee sama kër damay woo sëñ bi léegi boole leen. waaw waaw parce que man xame naa wuu ak wuu te dëkk boo xam ne kenn war a fa toroxal nit. maam borom Touba dafa bëggoon kuy sagal doomu Adama. mais ma romb fa ngeen mooy yuuxoo ba xamatuma wuu ak woo. mel na que dama jël alalu jàmbur vraiment Touba mere jolof maa ngi leen di gërëm gërëm waa Fuuta gërëm waa Daara Jolof waaye waa Touba dama dem ci sëñ Muntaxa boole leen wuu bokkul woo dañ maa yuuxoo te dëkk la boo xam ne dañ fay aaye politique moo tax taxaw ma fa mais yuuxoo yi tamit dañ ko far a aaye hmm? yaay sunu xarit. maa ngi dem léegi àjjuma dinaa dem ci sëñ Mountakha lépp laa koy wax ngeen waa Touba yuuxu te ngeen nekk di yuuxu alayhi salaatu wassalaam sayyidil mursaliin yaa neex waay Muhammadu Rasulillah محمد رسول الله صلى الله على محمد رسول الله réalisation bi Pape Samba Thiam la feggoog euh, Alaaji Daouda Gueye ingénieur en son benn jëm ñaari caméra soxna yaa Seyda Ndiaye mi nga xam ne nag moom lañu jàkkaarloo yàlla na yàlla defal jàmm may ko mu xippee ci àjjana ya gën a kawe fii ci studio euh, Seyda Mariama Ndiaye mbokk yi mon Aïcha Youssouf Jalali mm. est actuellement avec le vice-président coalition bu mag a mag la Mawlaana Yuusuf Jalali am foofu nga xam ne ca Comore actuellement Mawlaana Yuusuf Jalali à 80 pour cent tous les Comoriens et Comoriennes sont derrière derrière elle donc on va aller voir Mawlaana Yuusuf Jalali la candidate la maman des îles Mawlaana Yuusuf Jalali vraiment qui cartonne aux Comores actuellement allons voir Mawlaana Yuusuf Jalali en pleine campagne Comore Monaisa. Monaisa Yusuf Jalali Monaisa. Yusuf Jalali Monaisa. Allez, allez, allez, allez. Monaisa. Allez, allez, allez. Allez, ça va changer. Ça allez, allez, merci, merci, merci. On va changer comment Hier, on a fait une très grande rencontre avec le vice-président pour une coalition qui va changer les îles de Comores. Toutes les Comoriennes qui sont à l'extérieur et les Comoriens qui vivent parmi nous, venez nous rejoindre pour le grand partie de Monaïsa Youssouf Galali. moo nay sa Youssouf Jalal moo nay allez allez allez que ça bouge que ça bouge que ça bouge il est vraiment temps que Comores change avec les femmes avec les mamans des îles avec tous les Comoriens et Comoriennes les intellectuels on veut changer l'image de Comores. Des Comores. Allez, allez, que ça bouge. Que ça bouge. La lion de Hama Hamed, ma maman Désir. La lion de Hama Hamed, la maman Désir. C'est moi. La lion de Hama Allez, allez, allez, allez. La lion de Hama je suis tellement contente parce que actuellement toutes les parties ont vraiment vu que Mon Aïcha Youssouf Djalali veut que la démocratie, l'émergence des Comores, le vice-président nous a rejoints, on a travaillé ensemble pour faire valoir l'image de Comores. Et les femmes sont là. La jeunesse est là. Les religieux sont là. Donc avec Mon Aïcha Youssouf Djalali, c'est Comores. allez, allez, allez, allez, allez, allez-y, on va gagner, Inch'Allah. Avec une grande coalition, on va gagner. On va changer la commande. Je suis la maman des îles. moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa Bilfoor Bilfoor moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa moo nay sa Youssouf Jalal moo nay sa Muhammadu Rasulillah محمد رسول الله صلى الله على محمد رسول الله Ahmed Abdallah Thiam nee na soppeem ba Seydina Muhammad. mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan ki nekk ci réalisation ba Papa Samba Thiam feggoog ki nga xam ne mooy Daado Gueye ñu ñuy soxla Fatima Evans bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla euh, ki ñu doon tooñ léegi xam naa ne nijaayam direct la di Abdoulaye Daado Diallo mi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, di nijaayam di Daado Diallo borom bokki naay jee yàlla ko yàlla defal jàmm waaye nag tey dañuy seeti Souleymane Ndiaye ki nga xam ne moom la président Macky Sall dénk aéroport yi pour mu tabax ko yëngal na Gunaas yëngal Casamance yëngal Sine yëngal Saalum moom mooy Sénégal wane na ko ci fépp fu mu dem rek daal di motiver ak massifier parti bi waaye waa guddum dañ koo téye otage ma nga ca guddum ne nañ ko duñu ko bàyyi tànk moom nangu leen nekk seen maire waa Ziguinchor na ko déedéet yooyu yaay doon suñu maire bopp bi dafa ëbb nag ci diggante guddomp ak Ziguinchor waaye nag Goudomp la juddoo fa la maree fa la màggee waa Goudomp dinañ ko bàyyi mu dem Ziguinchor soo si bëggee xam dara meeting bu mag bi nga xam ne moom la Souleymane Ndiaye def yëngal na Ziguinchor yëngal na Goudomp yu seen Souleymane maa ngi nuyu waa Goudomp yéen ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi leen di gërëm ci motivation bi ak ni nga xam ne moom ngeen ma ñëw teere fii ci Goudomp mooy wane ne mooy wane ne fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee waaye man Sénégal ma moom sama liggéey ak président Macky Sall gis na ne yemuñu ci liggéey rek ci fexe ba émergence bi mu bëgg ñu doxal ko waaye ñu ngi koy massifier parti ba maa ngi gërëm ñi nga xam ne ñooy démissionnaire parti réew mi ak ñu jóge PDS démissionnaire ñëw rallié wu ci ñun moo ne nekk doole gi ci ñun la féete moo taxit la jeunesse casamançaise la jeunesse de Goudomp aujourd'hui présente au nom de Mariama pour wax ak la jeunesse de Goudomp waruñu dégg. waaw tey ñuy nañ la ñu ngi ñu ngi lay fay bienvenue fii nga juddu Goudomp yaroo fi màggee fi kon ñun duñ la bàyyi mukk nga dem feneen di fa nekk maire <laughs> waaw ñun daal ñun dañoo bëgg fii nga juddu yaroo fi màggee fi nga ne fi maire. waaw tàccu leen loolu li ngeen ko bëggee noonu lay amee. yéen ko bëgg. waaw te li ngeen ko bëggee. noonu nañ koy demee waxee son excellence le président Aba Macky Sall. dëgg ci ak yéen ànd ceeg ñu daal di koy doxal. ak sax la def kon nag ñun xale ñun jigéen ñu guddoom hmm. bi. dañ maa yónni ci yow. Hmm. ma lakk ko si joolaa. waaw kay. uli uli. uli ku seeka kee guddoom mm-hmm. joone mm-hmm. u ko taate mu la kaa meeraw mm-hmm. uli awju awju mu la meeraw baabe nu baji ne baji baabe nu baji baabe nu <laughs> maggee eh. kon baabe taate doon nu jebe ko la a meeraw uli awju soole mu la kaa meeraw leegi kati xati mu jaw bukken ma noona ba ko la ko baale mu baji waaw baale mu baji waaw ni ngeen ko bëggee noonu laa koy defee waaw ndax mënu ma juddoo fii yaroo fii màggee fii dëgg la ngeen bëgg ma nekk seen maire dëgg la ñeneen di ma xëcc may daal leen bàyyi dem di fay no waaw Ziguinchor ngi ko bëgg Medina mhm. Gounass Dakar dañ ko bëgg dëgg la ak ñeneen ak ñeneen mooy wane ne Souleymane Ndiaye mooy doomu senegal dëgg ma ne. buñ ne Goudomp buñ ne Goudomp du ay joolaa ñoo fi dëkk. am na soose am na tukulóor am na séeréer. Uh-huh. kon ala mana tiara kayra la ala baraka mandin kole ah. tiara jantaale mandin kole mi ah. salminon bandiraɓe halpular mi uh-huh. ko halpular uh-huh. bonjour les ressortissants Goudompe euh, parmi nous mais aussi les joolaa je vous dis merci encore bo ceegena joola baraka mu jooba mu laka amera ti Ziguinchor mu ne audio maŋee mu la ko a meere ti Ziguinchor aw aw ji maŋee aw ji maŋee mu la ko a meere ti eti Goudomp wata yo eh. ba ci boole eh. ba jaane ba jaane ba ci boole agene wo sa yo ko kinim wonu kinim mu nafaano bo ul mo tane aw ji maŋee aw ji maŋee mu la ko a meere ti Goudomp aya ah, aya ah, ayu maane Goudomp aw ji maŋee eh. ah, mu la ko a meere ti Goudomp ana so a jawo la ko baade Goudomp mu la ko a meeraw ana maane aɗa ta nena aye souleymane ndiaye aja bone aja koye ala bojene gudom gudom gudom gudom gudom gudom maja wonena maja ni kono ale ala ray bajam modu jeba kala ka mula kamera ti gudom bara gudom aja kwaje bajam Baja baje. Baja baje. Rasulillah Muhammad Abdallah Jamil Subim Sayyidina Muhammad Muhammad Rahman Rahim Malik al-Hudus السلام المؤمن si Tour Fête moo nekkoon nag ca coordination ba di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen seen émission Kouthia Show ka nekk ci réalisation ba di Pape Samba Thiam feggoog ingénieur de son Daado Gueye benn jëmm ñaari caméra yaa Seyda Mariama Ndiaye yal ko yàlla xare àjjana yi a kawe ci studio bi nga xam ne ñu toog di studio Seyda Mariama Ndiaye yal na xippee ci àjjana gën a kawe mbokk yi xam ngeen ne président Macky Sall son excellence na Fouta defa tournée tournée na tëj nañ ko Dakar bi ñu ñëwee Dakar nag dàmbuj mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mooy jàkkaarloog yaay faalu Macky Sall yaay faalu parti APR ak mu Marème Faye débat bu am solo ci diggante ñaar ñii débat d'idées lay doon walla débat de force lay doon Ndeye Fatou moo koy leeral ñu seeti leen. yoroo xol yoroo dara tey daal moom dara dara salaamaaleykum euh, ah man noonu la noonu la moo tax ba ma tourné ko. ma dem yóbbu sama la xaar. Ah, ah, ah, dëgg la kay daal di débat. maa la kon nag ñu daal di commencé bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a di leen jox seen wàccuwaay yéen a ngi ñëw si seen plateau bii di plateau yaa Zeyda sama rakk ji fi jógee yàlla yàlla yokk leeram ba dëgg neex yàlla xare ko na fii daw si. ñu daal di ñëw si suñu émission bi nga xam ni fii la lépp di leeral moom ñoo fi invité woon wax dëgg neex yàlla la moom dañ fee tojoon mais tey dañ fee daal ñoo ñëwaat te xam naa ne moom lépp dina leer tey jii yaay Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar fii sa biir kër ñu daal di invité tey sa xarit Dame mi nga xam dañ ko fi invité woon nga daal koy dóor ay coquette nuyool yaay Fall <laughs> bàyyi yooyu loolu paase na ndeykaatu maa lay fay bu baax a baax a baax a baax euh, di nuyu Sénégal ak li ko war wër àdduna wërngal këpp di nuyu diaspora bi mhm. di nuyu son excellence monsieur le président Macky Sall mhm. moom ak soxnaam su baax soosu madame Marième Faye mhm. waaw ñi nga xamante ne ñoom bëgguñu dara lu metti askan wi ñu tegal ma fii rek teg ma fii rek ma yor ba seen baat laay doxee fii ndax heure lu ma wax rek fii euh, dama si di soog ñoom yenn saay ba pare nee nañ ma nag naa bàyyi xuloo bi bàyyi xeex bi président nee na ma daal boo demee waxtaanal kafal foo war reewal waaw ku la tooñ sax na nga ko baal. waaw ku mu neex dara. ku dara pes non non mais nag du ma non rappel moom dafa muy am. dafa am limite mën nañu wax mais quant euh, di di moom. loolu duma ko permettre ah, kenn maa ngi nuyu Sénégal li ko war di nuyu sama naataango bi ma amaat ci plateau. monsieur Dame Mbodj monsieur Dame Mbodj président CUSEMS ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal suñu plateau nuyuwal waa àdduna ñi lay seetaan. maa ngi nuyu waa àdduna bi yëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel. Mhm. man la Dame Mbodj toogal fi euh, ñi nga xam ne wax dëgg yàlla. askan wi mhm. euh, am lu Mm-hmm. ba metti te mënuñu koo wax lëkku mm-hmm. Mm-hmm. ànd ak ñun ci forum civil pour doxal li nga xam ne mooy suñu xalaat ci biir réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di la xaar ngay euh, laaj ñuy tontu dëgg la euh, ki ma nuyu nag moom euh, mun naa ñàkk <laughs> borom ko borom koke di ah, bu ko defee ñuy fàttali ni yow bokkoo ci benn parti politique waaw ah, ah, monsieur Dame Mbodj ñu gis ni président Macky Sall wa dëgg neex yàlla dafa nekkoon ci tournée économique xamuñu politique mais fi mu toll nii ñu bëgg a xam ni dem na ci Fouta ñu bëgg ñu lay laaj daal ban njàngat nga am ci Fouta Fouta tampi wala Fouta tampaane. Euh, moom ku xool température Fouta sax xam na ne température Fouta mooy Fouta euh, tampi <laughs> ndax euh, bu dee température ñoom ñoo ñu ko gën a ëppale ñoo ñu gën a tàng. Mhm. waaye président Macky Sall li mu bëgg moom mooy nax ñi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi. Mhm. ambassadeurs yi nga xam ne ñoo fi toogal seen réew. Mm. di Union européenne. ak fonds monétaire international. Mhm. ak banque mondiale ak yeneen réew yi nga xam ne droit de l'homme nañu ko fa respecté. Mhm. la France Belgique ak d' pays comme Papa Cité là la bëgg wan ne que mandat bi nga xam ne moom laa bëgg a def yéen ñi nga xam ne yéenay toogal seen réew xool leen ne sénégalais yi doy leen ci man man maa yor population bi maa ko téye en loolu moo tax mu jël économie bi ko en politique pour jël image yi daal di koy mu nekk loo xam ne sénégalais yi euh, les étrangers mhm. la population sénégalaise et les sénégalais ba tey doy nañu ci ça le problème. Ah. c' est ça la réalité. ah mais loolu la ñu bëgg wax. loolu nga gis loolu moo am. ah mais président Macky Sall am na droit def. dama ne du tournée économique c' est de vision. Mhm. pour montrer. aux étrangers qui vivent parmi nous te mhm. ñii nga xam ne sénégalais yi li ñu bañ troisième mandat non effectivement le président Macky Sall dafa mhm. bëgg woon ne aux étrangers que moom moo yor buzz bi moom la sénégalais bëgg loolu la waaw waaw enseignant bee wax jàngalekat bee wax borom xam-xam bi waaye yaay Fall dégg nga li mu wax nee na dafa mel ni daal président Macky kii bu ko fi jaay naa ko borom xam la nekkee borom xam-xam. man sax def xamoo sa nga kii li muy wax nii gëmu ci dara dara dara dara nga man la ma bëgg booy invité nga invité koo xamante ne li muy wax maam da koy ko gëm mais kii li muy wax ay waxi naka nag la gëmu ci lenn. gëm na ko moom yow yaa fi dégg yow est ce que dégg nga ci làmmiñu président mu prononcé troisième mandat bi leneen ñuy def ngeen di yeeg firnde di jaxase nit ñi ak nit yi da ko dégg moom mu ne est mu prononcé ne yow yaa ko dégg yow. mais am na benn femme bu ko ne troisième mandat président Macky Sall foofu ree bu doy waar. dama ne gis ah mais reetaan taxul taxul taxul taxul kii da nga bëggoon mu jooy bi mu ko waxee. waaw mu gañ pour la di jooy <laughs> day ree parce que moom nitu jàmm la jàmm lañ ko xamee pour la muy gañ may mu naan ay troisième mandat yow moom li nga li fan ñëpp xam nañ ko. farul fenn bàyyi jàmm. kii fi mu waxtaan ñëpp xam nañ ko. monsieur Dame Mbodj lu ngeen di kàttan askan bi la fi nekk léegi monsieur Dame Mbodj ñu gis ni président Macky Sall mu dafay def tournée économique di nemmeeku mais dafa ànd ak ay gros bras ay nervi ay marron du feu kenn xamul ñuy dóor askan bi di leen fitnaa lool lool nan nga ko mës a mën a mën a jàngatee ban jàngat ñuy jox. xam nga jëlewuñu ay mag. Hmm? ay xale nañu jël. bëri may lancer message la jeunesse bi nga xam ne dañ leen di jël. Mhm. nañu yeewu xam ne ñoom. Mhm. ñoo delluwaat ci kër yi ñooy nekk ci mbedd yi. Mhm. ñii dañuy bokk dem Gàmmu. ñii dañuy bokk dem Touba. dëgg la ñii dem Ndiassane ñii dem Cambérène. ñii dem Medina Baye. ñii dem Popenguine ñii dem église. ñun ñëpp ay doom nañ ci yàlla suñu borom. kon am na loo xam ne dañ ko a rafetal. ndax bu la état jëlee di la fay pour nga jël sa rak. wara sa doom war koo xam ne yaag baayam yéen a bokk te xàmmee ko. dóor ko ba gaañ ko. ëllëg nga teew ci dëj ba di jooy yaa rey sa doom. dëgg la dëgg dama ne ils ont embauché des nervis des jeunes qui ont besoin de ça parce que xale yi liggéeyuñu kaay ma jox la fukki junni par bés nga dóoral ma ñoo xam ne dañuy déborder ah dama ne ci dëkk boo xam ne doxul koo ko jox mu jël. dégg naa 1300 lañ ciy recruter. 1300 dañoo am luuma. ni mu amee luuma diwtiir ak soow ak kànje ak ak ak ak ak engrais noonu la amee luuma sécurité. yow dama ne ndax yow nervi yow yaa gis moom moo gis nervi yi. man kii laay tontu nervi tontu ma la man kii maa la man dama changé di man mii maa tontu dama ne ndax yow gisoo nervi tegoo ci sa bët xale yi ñoo ñëw ànd ak son excellence monsieur Macky Sall di ko doole di ko jàppale waaye fii nervi amu fi ñëpp a génn ñu ko bëgg ñoo génn ànd ak moom waaye fii nervi amu fi Mm. deel wax deel wax li nga xamante ne moo am. Euh, te bàyyi xelu askan wi ngeen di jaxase. Euh, soxna si loolu laa bëgg kii man débat di laa bëgg dafa moom. débat di dama ne. débat di l'homme ne ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. yow may ma jaal ba ca loxo yi bare la tilim. waaye dama gis nga ku yàgg si teen ku ne baag fekk la fa laa. am ñi am ñi du ñu xuloo ca teen ba. dama ne ñàkk baag ñuy xuloo ca teen ba. ma ne la loo xamante xamante sa bopp sa bopp sa waay gën laa xam. waaw waaw reewande boo ko solee dañ la koy tuddee boo ko solul kenn waxu fi ay waxu réew a def gis nga xale bu yar gis nga xam mag mu xamadi day moytu gone gu xam laa la wax xamadi ku koy wax rek c'est parce que da nga xamul ndax boo xamadi ñàkk xamadi moo tax yow nga jàkkaarloog man di utiliser le mot vulgaire yaa ko gën a yaa ko ñàkk xamadi yaa fi wax réew a def dama lay wax rek nga man nee naa xamadi yow réew a def à travers l'objet aimé tout devient aimable lijjanti wu ma loolu laa la wax encore lijjanti parce que yow tu n'es pas aimable yow tu n'es pas aimable je suis pas aimable tu es kii yow je suis déjà aimé yow tu es kii man sama sonara yow dambo tu es kii laa la wax kii kii je suis man tu es kii man yow foo je suis une personne nekk ci télé bi tey bu ñu la invité nga wax ba ñu ràññee la ba ñu xamee la ndax lan bëgg buzz bàyyi leen may leen nit ñi jàmm kon yow monsieur Dambo da ngay wut buzz euh, buzz lay war parce que foofu ba dëgg neex yàlla da nga ma invité ci débat boo xam ne ah, débat d'idées la war a war warul nekk non non non war dafa nekk débat d'idées mais ah, warul nekk débat de violence verbale ana violé fii oh, eh. <laughs> violé dinay daa def waaw dañ bàyyi loolu ñu ñu ñu tëj tournée bi léegi waxal 23 juin jot na ñaari fan a ci des léegi nan ngeen koy waajalee ah, di woo ñëpp. ne nañ ko def ci marche pacifique. di woo ñëpp. nañ ko def ci marche boo xam ne bu ñu toj bu ñu sànni. ba deuxième vague du am. deuxième vague. dana ñëw. deuxième. na yem ci yow. deuxième vague nga xamante ne yéen fitna yi bu ñëwee na yem ci yéen deuxième vague. mais fi mais président Macky Sall mi ngi recruté mille trois cent personnes. yow ñàkk a wax ak man mooy sa jàmm di. ma wax ak moom olof dégguma yow ñàkk a rek wax naa yow olof dégguma. the girls. Hey. Eh! not understand. is back. is back. is back. I don't care. I don't care you know. I don't care. I don't care you know. waaw yow. is not democracy is woman. Ayo, Mary, I don't know. I know democracy. People in the world. I don't know. dafa juum mi. yow foo ko bëggee ma maata yow. I don't know. yéen Macky Sall bi ngeen gëm. Macky Sall bi ngeen gëm yow. xaalis sa tànk topp ko mais gëmoo ko par condition. xaalis dama koo gëm parce que dama koo bëgg dama koo gëm parce que bëgg liggéeyam ak bëgg askan wi bëgg réewam. bëgg bëgg ko bëgg réewam moom bëgg ko. waaye léegi doo ko may mu wax ci mouvement 23 juin bi noonu lañ ko. 23 juin bi mu yeesi na rek lañ fi lañ fa euh, soxna nan lay demee man li ma doon waxtaan ak moom parce que mhm. professeur jàngalekat laa mhm, su may wax ak moom bu ci mënul jëriñu man du ma jël na ci waxam. parce que benn dafa vulgaire. ñaareel bi mooy xamul moom nu muy wax nga may ma tuuti ñaareel bi mooy xamul nu muy wax ak man dama ne l' objection d' une circonstance. waaw oh, waay de la réalité. Mmh. du réflexion réciproque. sa enseignant ba la. Mhm. tu n'es pas réciproque yow. moi je suis pas réciproque. non un verbe. yow tu n'es personne. un élément. yow tu n'es personne yow. si A égal 1 2. B égal 1 2. a yow xoolal dugg nga mën dugg ci ay matak ay xamal la dama nga wax si débat bi la ñu wax. débat nga wax yow mooy dama duggal ak ay matak ay ñu xamul ma philosophe nga xaw ma lan nga doon. dépassé naa je suis un professeur la ma may ma jàmm mu laaj la moom. laaj ko li mu war a li mu war a tontu moom. moom ci le juin ñoom ñuy paree. yow moom moo tax ñu recruter 1300 personnes. kan 23 doore bi dina bëri de. doore jàmm xanaa ku recruter ñuy doore ñooy doore. ah recruter li ma la wax. ñi ànd ak président ñoom ñoo ànd ak moom dañuy wer de mais 1300 personnes sëñ Dame tey ngaa bañ a génn. 1300 euh, personnes dama la xamal benn affaire nga xam ko. Euh, bu dee da nga jaay ñoŋe. man la ma denc sama kër moo la gën a jonge. yow mun naa bàyyi ba denc sa kër yow li nga denc sa kër moo la gën a jonge fi kenn dund fi loolu. non dama lay wax gën laa jonge gën laa mu yow ka ma bàyyi ma ca kër ga moo la gën a doon góor yàlla fuuf. waaw d'accord d'accord d'accord ma bàyyi sa kër ga. non moo la gën a doon góor yàlla. non bu affaire góor yàlla la du ma ko xajal. ah la moo tax nga may wax loolu. non non non parce que du ma sa morom. moo la gën a doon góor yàlla yow doo ci yegg mais man ak samay soxna waaw non dama lay xool mais du ma sa morom. yow yaa ma yow affaire jonge ak affaire dégg ko dégg ko laa la wax xanaa yow. yoon baa ngi nii. eh yoon baa ngi.